monsieur le ministre pour dugg ci sujet bi damay laaj rek est-ce que réellement les répercussions et les dégâts yi nga xamante loi bi moom lay indi ça a été bel et bien étudiée monsieur le ministre c'est une loi bo xamanteni man je dis que c'est une décision regrettable aujourd'hui aux yeux de l'opinion nit ñi dañu faloon seeni maire juroomi at lañ leen falon de fañul faluñu leen juroom ben, faluñu leen juroom ñaar Juroomi at lañ leen falon. monsieur le ministre tay bu ñu nee report et ça, ça va me permettre de revenir sur intitulé au projet de loi B. Projet de loi numéro 15 2019 portant report des élections. Monsieur le ministre, nous naa lu ñuy reporté ci at bala et sur cela daf may permettre de faire une élection élection locale le 1er am le décembre bi parce que ce man je veux gëm li que je veux dañu respecter calendrier électoral ñu top à chaque fois que de besoin wala mu nekk lo xamante daf ñu arranger ñu bafouer calendrier wala ñu bañ ko ñak respecté monsieur le ministre et je pense que ça a été évoqué tout à l'heure délégation spéciale même si yéen fa yobbu yóbbu seen nit bu boba bu ngeen di tànn xamna du ngeen ñu tànn ñun opposition ndax da ngeen naan dañ fay dem sanni ji xeer wala dara délégation spéciale defe bu fekkente ni da ngeen bëgg xam li xew ci biir maire yi coono bi maire yi di dal wala collectivité territoriale yi problème yi ñu nekkee tey jii waroon nañ leen mën a mettre sous délégation spéciale bu fekkente ne nag prorogation la ñu wax que report moo mënatul nekk bu ñu génnee at bi rek report jeex na parce que boo reporté benn yoon dellu siwaat report amatoo report prorogation nga nekk monsieur le ministre beneen problème bi mooy légitimité bi maire yooyu di am tey aux yeux l'opinion ñett ña leen mandaté woon ñett nit ña demoon falu falu fali fali leen tey bu ñu génnee dinañ am dinañ am problème parce que juromi at man da juromi at la faloon sama mère, falu mako juromi at tay buma rombé je me dis qu'il n'est plus légitime waratul nek sama mère? peut-être nak légalité ba dina ko am parce que loi bi encadré nako donc monsieur le ministre lol moma permettre mané est-ce que réellement étudier nañ problème bi mu war indil askanu Sénégal